Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ mën ti door nga mën ko ñëk am bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am. waaw bo défé isaasu la si isaasu booy tëdd guddi. waaw wax isaasu sul sul tabsil waaw ba euh, waxal insanu maalax yawmi sin tuhaddisu akhbaraha bi an rabbaka aw haa. aw haa Dan ne maa ngi ñaan nga yema yeb waaw heure tel. waaw bo nelawé heure bobu buy jot. net da nga yew lool doon naa ko def bi yew man loolu tamit mi ngi ci mi ngi ci isaasul silati. waaw isaasul silati ba tey c'est vrai isaasul silati ba tey bo doon séti serigne wala ngay séti ngoro. boo noonu dem ci ngoro wala ngay dem ci sëriñ mm. wala ngay dem ci tukki wala nga dem nga jëm ci nit nga xam ne kii dafa am loo ragal ne kii daal mën naa am dafa maa bëgg wor mm. wala daf may jaay suuf mën naa am damay nax nga def wa xaalal in yow ma isin tuhaddisu axbaaraha mm. bi anna rabbaka awhaa awhaa tifli ko def ci sa ñaari nopp tifli ko def ko nii ci sa ñaari tànk doo sol dàll nag da nga koy tifli raay ko sa ñaari tànk raay sa ñaari nopp soya yeggee yaag waa ji bu ngeen toogee bu dee dalaa bëgg wor yàlla dina ko weer di nga ko bett muy téléphoné wala nga toog ak moom rëccile wax la lu mu la wër wax mm. mais bu bëgg wor ko xam ye ye ye